dale nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mii mi quotidien las vox populi l'observateur le témoin source a les échos walfajri le quotidien enquête yéenekaay yëpp xëy dikkal ñu ci loi d'habilitation bi nga xam ne ni kii démb daat nañ koy voté ci assemblée nationale ngir nag yokk doole njiitu réew mi di président Macky Sall yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal ñu jamono ji kay bu ñu leen di laaj kan moo am doole lool lool ci réew mi maanaam ne leen ko Macky Sall boobule loi nag ni ki démb dañu ko daal di voté en unanimité maanaam ñoom ñëpp daal ñoo ci daal di ànd ñoom ñi nga xamante ni ñooy député yi boobule loi nag dafay may Macky Sall sañ-sañ may ko doole ngir nag mu mën a jëf ci ni mu gën a gaawee rawatina ci lu jëm nag ci jàngoro ji nga xamante ni mooy coronavirus yéen kay groupe promo consulting bi ñu xëy fekk fa Cheikh Bara Dolly député PDS bi la mu xamle nee na jamono ji nag Macky Sall dañu ko war daal di jàppale soutenir dimbale ko Cheikh Bara Dolly na Macky Sall jamono ji daal yow yaa yor sa cëggul guy ba tey ci biir journal bii di las mu ñu xamal naan ñu ñi nga xamante nekk ñooy waa assemblée nationale maanaam député yi arme yëpp yëpp jox nañ ko Macky Sall kon nag jamono ji daal maanaam mën nañoo wax ne Macky Sall amatul benn benn lay yéen kaay gi mu ñu xamal ñu en tout cas daal lu jëm ci boobale loi Ousmane Sonko ak Mamadou Lamine Diallo kese rek dong ñoom ñoo ci àndul yéen kaay gi di Vox Populi mu ñu xamal ñu Macky Sall jamono ji mën nañoo wax ne moo yor ca gul guyama moo Macky Sall en tout cas daal li am ba moo si des ngir nag lijjanti mbir mi yéen kay gi di la témoigner mu ñu xamal ñu Macky Sall jamono jamono ji mën ñoo wax ne mooy buur di bumi moom Macky Sall mooy premier ministre mooy assemblée nationale mooy président mooy chef suprême des armées mooy président du conseil suprême de la magistrature mooy chef de la diplomatie Macky Sall mooy gardien de la constitution lii lépp Macky Sall la jamono ji nag daan ñu koy jox doole joo xamante ni maanaam xaw ma fan la ko Macky Sall daa di jëmee yéen a kaay gi du l'observateur moom mu xëy ba mbir moomee daa di wax ci Macky Sall mi nga xam ne daan nay dugal loxoom ci poos bi fas yéene séddale lu toll ci téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn junni ci ay tonu dund séddale ko ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaawa lu jëm nag ci ay facture yoo xam ne danañu ko bal ñenn ñi nga xamante ni ak seen loxo jotul seen ginnaawa waaye nag waa Ndakaaru waa Pikine waa Tëngéej waa cees ñooñee nag ñu ci bokk benn yoona yéen kaay gi de Le Quotidien mu ñu xamal naa ñu jàngoroy coronavirus ji bi mu duggee ci réew Sénégal tey la def benn weera waaye nag li nga xamante ni yàq na ko fi def ko ni ay njombe loole lépp journal bi dellu si yéen kaay gi di source a moom mu xëy di ñu xamal naan ñu am na nag ay cas yoo xamante ni bu ñu amee coronavirus Abdoulaye Diouf Sarr ak médecin yi du ñu nelaw bay yandoora ndax dafa am cas yoo xam ne maanaam moo leen di tiital rawatina ñi nga xamante ni daal maanaam ñi yàgg jëfandikoo sàngara ñooñu bu ñu amee Covid 19 maanaam mbir mi mën na leen a sonal loola wala ñi nga xamante ni dañoo yàgg ci am tux wala ñi amee diabète wala hypertension cas yu mel ni daal maanaam ñi nga xam ne ñooy médecin covid-19 bi ba tey ci biir journal bi di Sud Quotidien mu ñu xamal naan ñu lu jëm ci wàllum njàng mekk njàngale mi daat nañu koy dàqaat ba ñeente fan ci weeru mars l'observateur ne am na ñoo xam ne jamono ji nag ñoo ngi njortu li nga xam ne mooy année blanche yéen kay gii de la témoin mu daal di xëy dellu si ci lu jëm nag ci wàllum xaalis bi nga xamante ni ñoo ngi koy dajale ki nga xamante nag mooy Tahirou Sarr moom ab homme d'affaires la moom Tahirou Sarr dafa génne lu toll ci benn milliard dimbalee ko Sénégal jox ko Abdoulaye Daouda Diallo waaye nag benn milliard boobu commencé waaw ndax waa témoin démb dañu ko doon ŋàññi te gis nañ tamit Moustapha Diakhaté moom nee na benn milliard boobu dañu ko war a delloo Tahirou Sarr ndax lan moom Tahirou Sarr dañu koo tudd ci ak njublang ci ak scandale goo xam ne toll na ci quatre-vingt-quatorze milliards mooy milliards yi Ousmane Sonko tuumaloon Mamour Diallo Tahirou Sarr mii dañ ko see tudd kon nag mbir mi comme dafa nekk ci kanamu yoona milliard am boobu dañ ko ko war a daal di delloowaat loolu la waa témoin la Moustapha Diakhaté daal di wax ba tey ci biir metti nag Covid 19 bi daan na kay faat moom démb denc nañ ko ci loo xamante ni ñu bari yéeguñu ko ak njabootam rek ñoo ko daal di fekkee journal bi nag ne deuil national bi nga xamante ni waroon nañ ko ko mën a defal Covid 19 bi moo tax defuñu ko journal bi nag nee na juróom-benn nit rekk la ñu autorisé woon ngir nag ñu daal di kay fekkee ak ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum wér-gi-yarama yéen kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal nañ ñu ni ki démb fukk ak juróom ci ay nit daan nañuy amee jàngoroy coronavirus waaye am na juróom ñoo xamante ni daan nañ siy wér libéral libération yéene kaay ne nag man maa leen di wax ko juróom ñooñu fan la ñu dëkk ko juróom yooyu yépp ci ndakaaru la kon nag jamono ji mën na ñoo wax ne en tout feebar bi ma ngi jaaba jonge ci biir ndakaaru yéene kaay gi di réew mi quotidien mu ñuy xamal lan ñu ñu bari nag jamono ji ñoo ngi ci covid 19 bi jàngoroy coronavirus yi waaye nag waru ñoo fàtte benn yoon bari lu pétrole bi nga xamante ni dafa daal di wàññeeku ba téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom ñaar daal na wàññeeku kon nag jamono ji ñoo ngi ki nga xam ne moo njiitu réew mi ngir nag mu wàññi li nga xamante ni mooy carburant bi waaye nag waxuñu ko mu wàññi ko ndànk de wàññi bu baax a baax a baax li waral nag barilu pétrole bi daal di wàññeeku bokk na ci gitangaas gi nga xam ne moo dox diggante waa Russie ak waa Arabie Saoudite ba tey ci journal bi du l'Observateur mu daal di xëy ci Amadou Samba mi nga xam ne mooy faux médecin bi moom nag daat nay wax lu doy waar ci kanamu enquêteurs yi nee na test yi nga xamante ni moom la doon def jëm ci mbirum coronavirus maanaam cent mille francs la ko doon defee deret ji nga xamante ni moom la doon def nag ginnaaw yi da koy jël sotti ko ca laba booba ak mbir yu doy waar yoo xamante ni daat na kay wax libération yéene kaay mu ñu xamal ñu Amadou Samba moom kay dafa yombal enquêteurs yi mbir mi ndax dafa jekk-jekk na leen daal bëgg ngeen a dégg dëgg enquêteurs yi na ko waaw mu ne leen je ne faisais que mentir maanaam nag dama doon paccal forox rek li ma doon def lépp ay tappale la kii njub la nga yéene kaay gii de la turbine mu ñu xamal ñu ku fuur fa bi nag daat nañu koy dàq ba ñetti weer ci kanam